golle bonde enɗam boni daretna futti bi mi ngi fi ordonnance baa ngi fi waaw bi moo ko yoroon waaye jox na ko sama yaay bi mu ñibbi ndax léeg-léeg dina leen di faral di dal kër gi heure añ jot du ngeen añ reer wala ndékki ñun kay ci dañ dëkk daanaka barka démb ji mujj toog lu mat semaine ci ndu tàgg suñ ay waay yàlla mas ay waay yàlla ay ko amul loo lekk ba nga am loo fajoo allahu de wallaay ndeysaan doo ko am su kër gi bërka dem rek ci mujj mhm. toog fan mhm. ñu lekk mhm. sama doom ji mujj ji muy sëñ Fall ma bëgg fa tudd sama doom ji sëñ Fall la bëgg sama xol amin asalaamaaleykum wa taala wa mbokki ami internet yi nga xamante ni ñooy baaxoo ak topp Pape sociale moo xam ci TikTok bi la moo xam ci chaîne YouTube PNTV moo xam ci chaîne YouTube ànd taxawuñu ñu di TV la tey mooy fukki fan ak juróom benn bi sama mag demee ak léegi xamuñu fan la nekk xamuñu fan la ko jant bi di tiim xamuñu dara xamuñu mi ngi dund xamuñu fan la ko jant bi di tiim mu metti lool wax dëgg yàlla ñu ngi jàkkaarloog yéen waaye ñu ngi ànd ak ngëm yàlla gu mat sëkk tey bu nu woowoon ni nu xëj na dafa ñàkk bakkanam danañ ko defal lépp lu nuy defal ab jullit waaye bu nu xamoon tey fan la nekk fu mu mënti doon danañu ko jëli wax dëgg yàlla loolee tax daanaka liggéey bi na ngeen ko daan gisee giseetu leen ko noonu ndax ñun leer nañu leeruk yàlla sunu toog enrangé wul malade yi sunu toog enrangé wul néew ju doole yi moo tax ñu ne nanu jóg rek ngir jàppale néew ji doole yi te yàlla rek tax ayu bis ci ginnaaw gison ngeen ma jël sama vidéo collé ko ak ben vidéo sama dom baay muy ki nga xamanteni moy soxna Awa Niang dëkk fii ci Touba Ndamaatu mom soxna Awa Niang jamono bi nga xamanteni mu ngi def vidéo wax deug yalla ku gison Awa Niang ak barki demb gis Awa tay tey da nga naan aduna dal ndeket du dara ndax ku ko gison demb mu nekkon jank bu rafet xess pecc wax deug yalla tollu ci digg ndawam wax deug yalla nga xam aduna du dara waaye tey nga jàkkaarloog Awa Niang tawat yàq àddunaam feebar tëral ko soppi ko ba boo gisee photo bi démb gis fot gis jëmmi Awa ji tey danga naan kii du moom est-ce que du dañ koo soppi est-ce que du dañ koo soppi waaye nag sunu borom mooy ki nga xamante ni moo ko teg natt bu métti bii di jaajëfal ak jaaraamal képp koo xamante ni mës ngaa yëkkati sa ñax jaarale ko ci Dakar Buzz International ñoom ñi fi njëkk a ñëw tourné fi vidéo wax dëgg yàlla def ci liggéey bu ama am solo ba ñu jëloon soxna Awa mi yóbbu ko hôpital faj ko ba mu delluwaatoon ak sagoom waaye tawat bi nga xamante ni moo ko dal dafa laaj accompagner ak suivi tax bu toogee naanul garab wax dëgg yàlla moom awa feebar bi da koy dikkalaat ngeen gis ko ayu bis ci ginnaaw ma bàyyi leen ngeen seetaan bi muy woot wallu di woote wallu tiit ak jaaxle rek moo taxoon mu waxoon ci vidéo bi ni kenn jàppalewu ma feebar bee ko gañe woon ba la muy wax sax contrôlé wul contrôlé wu ko waaye ayu bis ci ginnaaw ami internet yi tàmbale maa yónnee xaalis ba lu tolloog ay deux cent cinq mille tax ma ni nañ ko jël yóbbu ko opitaal biñ ko jëlee yóbbu ko hôpital moom Awa Niang daal di koy faj ba mu delluwaat ba ngeen gis ni moom Awa tane na ba mi ngi santaat yàlla sunu borom bu baax a baax waaye bi mu génneek léegi nag amaat na ay jafe-jafe ordonnance ba tax tawat bi tàmbali koo dikkalaat ñu won leen Awa keroog ba mu toogee jaaxle lool di woote wallu ngeen seetaan ko te ñëw. Tapi tay bi yàgg na metti na waa Sénégal di pil lépp te yàlla tax mu ko buñu mënu daa bàyyi sama njaboot gi dee de ay waay waa Sénégal waa du bépp ak mooy dégg waa du bépp ak mooy dégg daga mu ne mënu daa yàlla tax daga mu ne mënu daa yàlla tax ay waay di mënu daa yàlla tax am na ñaari man yu jigéen ak ñaari man bu góor di nga mën a am na yaakaar di dimbali lépp te yàlla tax am naa ñetti bant ñaari jigéen ak benn bu góor te ñoom ci ñoom ma reporté yaakaar te ñàng bi ko de bele léegi yàqu na ay waa bu ma añee du ma reer bu ma reer du ma ndekki ku amuloo añee doo reer doo amuloo ndekki doo dem hôpital faj ji waa Sénégal bi fekk ni yéen mooy ndekki yaa ngi leen di ñaan ngeen dimbaloo te yàlla tax ba dama bay bàyyi sama njaboot gi dee ba fi do jigen nga don yaay wala nga don père de famille wala nga doon borom kër te seetaan vidéo Awa Niang bi muy woote wallu te wax dëgg yàlla say rongoñ dalul ci sa dënn nit bu demee ba bopam ci réseaux sociaux yi dafa amatul solution amatul ben amatul ben solution lolou motax mu ci réseaux sociaux yi ak mbonom dafa tit jaxlé liko dal bari ñum dal la yalla xam la sunu borom xam doyna lolé tax mom soxna awañang bi nga xamanteni ko jël hôpital ñu ko ay ordonnance waaye xam ngeen ni man fan yi sama mag dafa réer sama liggéey daanaka dafa dama taxaw liggéeyatuma loolu moom moo tax ma ni danaa jaayanteeg yàlla ñëw ba Touba jàkkaarloog soxna Awa mu jàkkaarlook ami internet yi ngir ñu gën ko jàppale accompagner ko maa ngi sàkku ci bépp kilifa diine bu nekk fii ci Touba ana kan mooy jël en charge awa mii toog sama doom baay bii toog kan moo koy jël en charge accompagner ko fii ak mi ngi naan ay garabam dafay ànd ak xel mu dal feebar bi da koy bàyyi carrément waaye depuis bi mu génnee hôpital ak léegi ñu bindal ko ordonnance ba léegi moom awa ñang fii mu tëdd naanul benn garab jaaxle na ay mbokkam jaaxle nañ boo leen xoolee kër gi mu dëkk nga xam ni ñoom bokk nañ ci ñi nga xamante ni ñoo gën a ñàkk ci koñ bii ñu dëkk bokk nañ ci ñi fi gën a tumuranke bokk nañ ci ñi fi gën a soxla ndimbal waaye ndax danoo war a génn yalwaani bu nu génnee yalwaani ndax dinañ leen sarax lu leen mën a jariñ ah àdduna moo doy waar ñu jëm ci période tabaski ñëpp xam tabaski ni mu mel ak ni mu mettee man de ku ma waxoon Awa fii la dëkk duma ko gëm waaye bi ma ñëwee lay yëgsil sama bopp gis kër gi xam naa ni Awa ku soxla ndimbal la yaayam ku soxla ndimbal la moom ay mbokkam kër gi ñu soxla ndimbal lañ maa ngi sàkku ni ngeen jàppale waa Tundóodi ba tey jii nii seen dund soppeeku maa ngi sàkku ci yéen ngeen jàppale ko soxna Awa mii ci wàllu wér gu yaramam waaye ci ab dund tamit ndax ku amul loo lekk fan ngay jële loo fajoo ñu daal di déglu Awa ginnaaw bi mu génnee hôpital kàddu yu rafet yi mu yëkkati jëmale ko ci bon volonté yi jëmale ko ci ami internet yi waaye jëmale ko ci jëmmi Pape Niang ji toog ñu daal di koy déglu te dellu si waat. amee internet yi jàpp nañ ci bu baax a baax waaw ndax ginnaaw yàlla rek xam ñaa jàpp na ci baax keroog ba ma lay ñaan naan la boo ma yóbbul sa doom baay bi dina dee wallu wallu nga ma nak wallu si ma de keroog sama mag bi di say njaareen ba mu ñibbee ah ñu bare dañ caa woo daanaka xaaral awa mu daan leen lu ngeen ci xam rek dangeen ma ko wax fekk ñaari fan xëy na paab dina am lu ko dugal xëy na bu ma ñëwee yóbbu ko ci hôpital waaye de àggul lool de ci saasi rek nga daal di yónnee xaalis bu jox ma daane yóbbu lekk ci hôpital léegi lu ngeen ko lu ngeen ko ci defar rek ngeen xaalis bi may jox aw ah, hôpital la bëgg ngeen faj ci ba wër yalla yàlla na la fayal nak ah. yalla mi ci am sa fay yalla la yalla fay ak képp ku ci jappon yalla la yalla fay paa bi ah, kii mii faadal neeg mi jappon na ci bu baax yalla ma ko yalla fayal ñaar cubu jappon na ci bu baax yal na la ko yàlla fayal am internet yëpp maa ngi di di gërëm lool sama xol sedd na ci guy ah sama xol sedd na ci guy man nag damaa mënewul wax ndax xam naa ne bopp ji keroog ba nañ sama mag ame am nañu jigi soo seen bopp ba wax nañ ci si loo xam ne waruñu ko cee wax waaye nag man booba toll naa foo xam ku gis sama vidéo may nga may nga may seetaan boo bàyyi jooy sax da nga jooy booba xamatuma

moo tax Awa Niang tàmbalee yaram bi commencé waat di neewi tànk yi di sadd bopp bi di neewi biir bi gonflé ay waay Sénégal ana defkatu lu baax yi ana jaamukatu yàlla yi ana ñuy sàkku ngërëmal yàlla ana ñiy sàkku ngërëmal yàlla ana waa kër Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul maa ngi woo ki nga xamante ni moom moo di soxna Baali Muntaxa ak waa fondation Soxna baali ñoom Serigne Cheikh Diop ñoom Soxna biisu ngoone maa ngi woo képp koo xamante ni defkat lu baax nga ay bu ngeen seetaanee ba feebar bii gañe awa ñang maa ngi leen di xamal ni bis kuma fi dajeel dina la ni bul fi indi nag bul fi indi dara te danoo ñaan yàlla awa gudd fant ànd ak wér nit ñi nag dee leen seeti ñi feebar moo gën jaale ji ñi faatu dee leen dimbali nit ñi ca ba ñu soxlaa moo gën ngeen di rey ay nag ci seen i dëj nañuy dimbali nit ñi ci jamono biñ ko soxlaa awa sonn na awa ñang jaaxle na awa xamatul fan la jëm waaye nee naa ko bul jàq bul jaaxle yàllaa ngi ñëw ànd ak bon volonté yi pap ñaa ngi ñëw ànd ak bonne volonté yi ngir ñu tarbiyu la jàppale la te yàlla rek tax ñëpp ñi nekk ci kër gi ñi ngi jooy lan la ñuy jooy tiim seen mag mu tawat mënu mënuñu mënuñu mënuñu koo faj lan la ñuy jooy tey kenn ci ñoom su amoon lu faj Awa Niang mii jaral na ko mu xare àddunaam ñàkk lépp lu amoon taxawu Awa Niang mii Awa ku jara jàppale la Awa Niang ku jara soutenir la Awa ku jara dimbali la ñu daal di yëkkati kàddu déglu ki nga xamante ni moom moo di Awa lu jiitu ñuy ñëw ci yaayam ak dëkkandoo yi nga xamante ni sonn nañ lool ci. waaw maa ngi wax dëgg yàlla sant naa la gërëm naa la man de dëgg yàlla sama bopp ji keroog bu ma doy wool naan ba ma jàppalul paam ñaam sama doom baay bi boo ko jàppalul mu dee xamatuma mu fu ma nekk bopp ji egg na ma foo Dakar bu may wax xamatuma fu ma nekk waaye da Dakar sant naa leen gërëm naa leen ñoom ma jàppale la njëkk a bokk bu ñu may jël asaata ki ma doon liggéeyal doomam moo doon jël asaat waaye mbiru sëriñ yi moo ci juddu moo tax ma ne mbiru sëriñ gaw ma ko def ma ko dara man affaire sëriñ bu ca xase ba am dootuma ci waxati taxul faadal moom bàyyi taxul naa ci bu bàyyi sant naa leen bu baax gërëm naa leen mu daane ah ginnaaw sëriñ bi ngi ci dudd te moo leen yàqal ah duñ bàyyi mukk duñ dellu ginnaaw mukk dañ lay jàppale ba nga wér ma ko ah kon nu ngeen ma mën a jàppale ci mu gaaw rek ngeen yóbbu ma hôpital ndax man xam nga feebaru hôpital laa yor kuma ma dimbali daal ma jël te yàlla tax ndimbal la laa soxla ci yéen waa Dakar Buzz ñëw fi njëkk ñëw biir woo ma def seen yëf avant waa Dakar Buzz fi ñëw nag ñi ngi dañuy ñëw di ma vidéo jambo di man ma lim ku lim da ngay juum du ma tudd kenn ka ak ngi nga xamante di bii ni man xam ma leen fu ñuy jógee tax dañuy jek jek rek dikk yóbbu ma fere di ma kaame vidéo la sama ndég rakk bi yóbbu nañu fa tay vidéo ma ta ñi ma vidéo ñëpp dañ ma naan bu vidéo bi jenee dañ ci am am ci man nga waaw leen a xaar rek waaye boobu ba léegi du gis du ma dégg baal ma foofu ah. noonu nga xamante ni ñoo la daan vidéo dañ la daan wax ni vidéo bi bu génnee ñoom dañ ci am yow am ci ñi ma daan vidéo moom kay dañ ma daan wax ni ma bu bis bu dañ ci am ñu am ci allahu akbar maa ngi leen a xaar waaye ma du ma gis du ma dégg. doo ci am ñoom ñu doo ci am ñoom ñu am bàyyi la ak sa tawat. xam naa ne man xam naa daañu ci am xamuñu ci am ñoom waaye man de aw ma ci man dëgg yàlla am. ak ñeneen ak ñeneen yoo xamante ne bii du ma xam fu ñu jógee ñoom it. dañ may yóbbu rek di ma vidéo te du ci am du ma ci def dara xam nga ñoom dañu am lam déet waaye man de aw ma waaye naar ci bu moom sant naa ko gërëm naa ko nu tuddati faadal ñank sant da ko gërem na ko ñofi jëk ñew ñëw avant ñu day wo ñofi jëk jëk ñew ñu daana ñun de dañ fa mëna ñew ñëw way bu marté bu soobee yalla am dañ jóge ba Dakar inshallah da daa ba fi vidéo awa san koku moy sama doom Baye Fadel ñang bu Dakar ba social Sénégal boy xol ñi nga xamanteni social jaamu yalla lañ ko def bo nee ñaar dooni ñett boo nee Pape Fadel ñang bu Dakar ba social fa ngay yam parce que ñu xam ñëpp ci social la ñu xam te lepp lu ñu jaamub yalla jox kako ko tax a danañ ko yobul mom bam jeexal ñun ñu tok ànd ak suñu borom ndax bi liggey yu tay la fayuk ëlëk yomal khiyamatul akbar la. waye na sa xel dal aduna, ken deful ken len ken defalul ken len lu way def sa bop ku yaakar ni mën nga neub borom bar mi li xew yag yag da nga ñege nayo sa loxo jor dëkk boo xamul loo fay fekk lépp loo dégg ni day lore war nga ko moytandiku balaa nga fay yegg ndax waa ji de saay su ne danañ ko ñaan yërmande ak a bëri yërmande waaye nit kay njëkk a yërëm boppam bu bëggee yërmande yàlla wàcc ci moom nanu ragal yàlla sunu boroom nanu bàyyi xel sunu bopp nañuy bàyyi xel sunuy moroom tey kii ku ko vidéo dem am ci fukki dërëm lekk ko lu mu lay jariñ ana dërëm boobu noonu boko lekkel ndax di nga nelaw kon nanu bayyi xel aduna bi ñu nek roy nak dunduro piir moo tax képp kuy def ta yalla taxul ngay def la ngay def lo ci am na nga xamne ne yomal xiyam sa ak sa borom ya xam kep ku mësa jël Awa Niang mii vidéo nit yonne la ci mom xaalis ta fexewoo ba mu jot ci yomal xiyam dang ko layo ak mom xana mom mu jéggal lako waaye bu la ko jéggalul da nga ko layoog moom te yaakaar naa ku yërëmatul nit ki feebar ba wane boppam ci réseau sociaux yi nga di ko utee xaalis te taxul nga la la ko tax a jóg xaalis boobu defuloo ko wallaay yàq nga yàq nga ko te yaa ngi yàq xolub ki bëggoon a def te yàlla tax xamul fu muy jaar ba def lii moo tax kenn defatul lu baax ndax fi ko tax a jóg dëgg-dëgg duñ ko fa def awa feebar bi tàmbali laa dal keroog ba nga génnee hôpital ndax yëgoon nga taw fi sant naa bu baax. doon naa lekk doon naa naan. Mm-hmm. waaye garab laa amul. Mm-hmm. xam naa ne moo tax nay weege sonn laat na. Mm-hmm. tey jii fi ma waxee yow. lekk jugul sama gimiñ de. ndax bu ma sama yaay ji waxee man ka maa lekk de. mburu mi ma daan lekk si néew sax. lépp mënatuma kaa lekk. ordonnance bi mi ngi fi. baa ngi fi waaw sama mag bi moo ko yoroon waaye jox na ko sama yaay bi mu ñibbi. ordonnance bi ñaata la. ordonnance bi kay laajtee guñ ko sax. laajtee guñ ko de. ndax léeg-léeg dina leen di faral di dal kër gi heure añ jot du ngeen añ reer wala ndékki. ñun kay ci dañ dëkk. daanaka barka démb ji mujj. dañuy toog lu mat semaine. ci du tàgg suñ kër gii. aywaay yàlla aywaay yàlla mos. yàlla. ay ko amul loo lekk ba loo fajoo. doo ko am de. wallaay ndeysaan da ka am su kër gi barka dem rek ci mujj toog na lu mu juróomi fan tamit lekk sama doom ji mujj ji muy sëñ ma bëgg fa tudd nga sama doom ji sëñ Fall la bëgg sama xol yaa noo tudd man Ami Ngooj laa tudd Awa Niang sa la sama doom la eh, ndax mën nga ñoo wax kan mooy Awa Niang laata feebar bi di ko dal Awa Niang ah wax dëgg man na la wax aw ñang ndax bàyyi mi gédd aduna daan na ko wax da daan liggéey rek ni jox bëgg ci mbubb bëgg ci dal bëgg ci dara bëggul ma xif bëggul ma mar bëgg ma lol bëgg baayam courant bi sax moko defal baayam fay na weer defal ko ko wax deug yalla baayam da ka daan wax yow de bo doon goor du ma jaaxle li la ko daan wax waye ñu dema dem dem ba febar bi dugg ko wax deug yalla fune ne lay yóbbu nañ ko ñaan lu nañ fu ne suñu melokaan yi ñu ne ñaan lu beeg sëriñ seeg fu ne dem nañ fa moo na ko yokk amatuñu dara fii na fi ñu toll ni mënatuma mën naa am benn dërëm boo xam ni mën naa ko def départ te nit ñi joxuñu ma ko soxna nañ lool waaye man ma mën a wére wére ma ko gënal man bu wéree rek ba dellu si sagom rek dana baax bu wéree ba mën a dellu ci sagoom dina baax loolu ami internet yi dinañ ci jàpp tañit waa Touba dégg nañ li nga wax ak képp koo xamante ni rek maanaam defkatu lu baax nga te nga nekk jaamukatu yàlla sama mag ji Ndeye Fatou Diop Gainsborough bu déggee lii wax dëgg yàlla dina ci taxaw taxawaay bu am solo ndax moom bëggul kenn ku tëdd bëggul kenn ku jaaxle bëggul kenn ku nekk ci ay jafe-jafe wax dëgg yàlla. ginnaaw si loolu awañang feebar bi dem ba neewil ko kanam gi yaram bi yëpp gonflé en tant yaay nga tiim sa doom mu feebar amoo loo ko fajee feebar bi di gën a yokk muy jooy ngay gis muy gën a neewi en tant yaay lan la lay def. man kay ku ne gis na ma ñi ma kay gis nañ ma fi ne ku ma gis dang may yërëm ne gis nga ma yaratuma benn yaram ndax moom rek lay xalat duma nelo nelaw duma nelo bu nelaw rawati na mu yon metit ma nek ci kër gi lu ma ñur ñural ma ka togg xam ni lolu metti na lol wax deug yalla tay lan ngay wax ñi nga xamanteni ñu ngi lay sétane ngir ñu jappalé sa dom ji ci wërgu yaramam ak nekkinu kër gi ta yalla tax. Hmm. lu leen di wax xanaa ñu jàppale ma si rek bu baax laa leen di wax sant naa leen gërëm naa leen. jamono kenn waaw sikkuñu kenn waaw kim lim doon wax noonu am nañu si gis seen bopp waaye boobu àndut ak sagoom keroog bi mu lay woo fii xamul fu mu ne mu naan man gisuma wideo gisuma dara fii ne am nañu ko si jàppal mer te loolu moom jaru ko jàppal mer ndax dafa tawet waaw. nañ ko comprendre ñu japp mer xamni aduna mo nonu nit ki nga defal lu bax su demee ba waxu ko rek dafa fekk ni feebar bee ko gagné ta ku sétane awañang jamono bi mi wax da ngay xamni du awañang mo fi nek di wax tax bobu xel mi dem na euh, bi gagné nako nañ comprendre ta ñi defon ta yalla rek ka taxoon ñu def bu ñu sunu borom aji magi ji dana len ko fay yaay jamono bi ñu ngi nek ci période tabaski. la santé avant tout xam naa ni ban volonté yi dinañ ko jàppale ci wàllu euh, li nga xamante ni mooy tawat bi te yàlla rek tax dégg naa ko léegi ci biir i kàddoom mu ni léeg-léeg da ngeen di toog fukki fan wala juróom-ñaari fan du ngeen lekk du ngeen naan bu leen dalee nan ngeen koy dundee. a ah, moom kay lu ñu egg loolu sax la ñuy muñ rek ndax da daan liggéey di indi baayam daawul bëgg ko njaboot gi xiif daawul bëgg ñuy mar mu génn àdduna nag léegi. léegi ay rakkam mhm. liggéeyaguñ amaguñ doole moom donc moo fi doon liggéey di ma jox mhm. léegi bu ma ko amatul mhm. ah si nit ñi rek laa mën a dem waaw samay am di jàmm rek du ma dem ñëpp nag waaye dana si am ñi ma dem waaw ñi ma dul xamal ñoom laay jooyal sama uh, ndimbal waaw ñi dimbali ma tabaski ngaa ngi ñëw ndax ndax tabaski yi weesu ndax nan ngeen ko doon dundé ndax yalla dan na leen ci wërsegal lu ngeen lu ngeen tëbaskee wala daw leen ko wërsegal metti rek way du tee ñu tëbaski samay am di jamm ñi ma wara jox dal amna ci ño xamni dañ ñi jox ndawal ba ñoy ñoy ëppalé ñi ñi rayoon. kañ nga gëjë ray xar. ah gëñ la mom gëñ ngeen ray xaru tabaski. waaw sama borom kër bi dina ba tay amuko momit gëñ la gëj ñoo ray xar mom ngeen gëjë ngeen gëjë tabaski. te awa moo daan jënd xar di indi. baaye moo daan jënd ba mu amatul moom koy day def bu liggéeyee rek lu mu am def ci kër gi moom koy daawul jënd xar moom. lu mu am daal ko def ci kër gi mais daal. Ah, daawul am dara daal di leen di bàyyi. déedéet daawul lekk dara bàyyi leen. déedéet lu mu amoon daal ay mbokk ma ko waaw tey jii nii ñu jëm ci tabaski 2023 ndax yaakaar ngeen ci di ngeen am xar. ñun kay yaakaaraguñ man kay fii ne yaakaaruma daal lu dul mu wér rek laa moom a gënal fii ne. lu mu wér moo ma gënal yooyu yëpp yaakaaruma ci lenn waaw. yaakaaru ci lenn dégg nga ko wax dëgg yàlla ku sa xol jeex sa xel xam nga ni la fay des du bari wax dëgg yàlla moom awa ay dëkkandoom tamit seetaanuñu ko ndax soxna si toog dëkkandoom la tey lépp loo xamante ni bon volonté yi def nañ ko jaarale ko ci man grace à moom la keroog ba ma wootee yoonu hôpital moo njëkk a jóg takk ndigam nekk ak awa wax dëgg yàlla daw ko benn yoon moom ak rakkam ji toog mu nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla am na ñeneen sax ñoo xamante ni am na ñeneen ñoo xamante ni sax jàpp nañ ci ñoom aadama bari na ñoo xamante ni jàpp nañ ci bu baax a baax ñu ñëw déglu soxna si lii muy defal awa lan la ko awa lebal ba muy def jëf ju rafet ji jëmale ko ci awa mile. asalaamaaleykum nuyu naa ñépp jaare ñëpp awa de sama dëkkandoo la ma dëkk fii ci koñ bii nag hmm, daanaka ñu juddoo fi wax dëgg yalla te suñu yaay ak suñu baay ñepp bokku fi dëkk ñu ngi ni sama papa ngi ni seeq ñu lu ñaaw nak lu rafet rek mako daan gis muy liggéey di dimbali ay mbokam di liggéey di jàppale ay doomam ta jom joju nekk ci awa man ju ko raw mo nekk ci man ci lool la sukkandiku ba jàppale awa jom rek jom ji ma di jàppale yaayam tama dem ba xamne dara nekkatu fi awa wewut moo tax man tamit ma tak sama digg bëgg lu awa wér awa wér mako gënal may ñaan ci yalla maa ngi njëkk a woo waa tubaa Mbacke gi ndax am nay milliardaires Cheikh Ahmad Bamba nañ ci jàpp awa wér waa tubaa rek bu ñu jàppee ci awa awa du ko jooy fen du jigante nag lu ñu wax mu ne sëñ Fallooy sama yaakaar tey ak kon yéen waa Touba man yéen laay woo maa ngi ciy jiital xalifa général sëriñ Muntaxa soxna Bali Muntaxa di woo mboolem képp ku nekk tubaa rek te am baat am kàddu te yaakaar sëriñ Touba war nañ la ci feebar awa bii kuy kuy kuy jëggaani nag sa kër dafa amul te yéen waa baax xam nañ ne bu ngeen jàppalee awa mi awa wér jàppale leen Pam ñaam ci awa mi sëriñ Pape loolu weesoo maa ngi sant te di la gërëm di la ñaanal ndax yow kat bu ñëpp mel ni yow macha allah defe naa ba nga yëkkatee sa ascension ba léegi maa ngi lay doo dugal leen lu ma gisut ba ma amee sa numéro yàgg na di la gis ngay jëf lu baax di dox lu baax di ko wax. ci bép côté nak ko dimbalé rek gis naa ko ma xaya Moussa ma dëkkoon Kaolack ak Moussa ma kon fouta ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak euh, ñu wéru ni ki aram ak ak ak ki ak Fati Fati ñaa sax la jida parce que Fati ñaa moom depuis mu tolé digënté nek sa gër ba légui ni dara umpu ma ci ngay ku baax ku yaatu ah, do ci réccu dara nak ñong koy ñaan yalla ak Sidina Muhammad yal na la yàlla fayal boppam yal na la yàlla ndax ma nam nga ko man nekk ci leneen ndokk nag bi la yàlla xeeree ci lu baax. jërëjëf Seyna Aline dégg nga ko moom soxna Adama keroog wax dëgg yàlla tey su ma jotee ci awa mi ndax awa man lañ njëkk a woo ko Dakar sax. man lañ ci njëkk a woo waaye dafa fekk ne rek léeg-léeg dafay am kaa yoo xamante ni dafa may leer ni lii chaîne bi may chaîne bi ma yor attanu ko ma boole kook sama doom bay Fadel Niang bu Dakar Buzz doom bay yal na sa jàmm yàgg waa Dakar Buzz yëpp yal na leen suñu borom defal tawféex ki ngëneel wax dëgg yàlla taxawaay bi ngeen am ci néew ji doole yi amu leen xàjj ak seen ku leen dix soxlaam rek da ngeen ca def la ngeen mën su ngeen demee ba amatu leen lu ngeen ci def ngeen defal ko vidéo ngir ñu jàppale ko li ngeen di def ci suuf moo ëpp téeméeri junni yoon li ngeen di def ci kaw kon mention espécial à toute l'équipe de Dakar Buzz International ginnaaw si loolu Baye Aliou xam nga ni lu mu néew néew néew du ñu dem fenn dégg ni dañoo xiif toog ay fan cin du fi tàkk toog ay fan ni ko awa waxee duñu am lu ñu lekk Nol de buñu ko sétané wax dëgg yalla duñu gor ndax xif ben yoon mar ben yoon kon suñu démé kër awa ñang mu ni dañuy tok ayu ayu bis duñu am luñu lek nolé tay dina fi dak tay tay lolou dina fi dak ba ayu bis ci kanam ta am nañ yaakar ni wa tabaski social wa groupe whatsapp tabaski social 2023 gëm na ni li ngeen dégg awañang wax ko gëm naa ni di ngeen leen jàppale te yàlla rek tax gëm naa ni lii ngeen dégg yaay Awa ji wax ko Awa nee ku amul lu mu lekk fan lay jëlee lu mu fajoo mu nekk loo xamante ni lu jar a bàyyi xel la ñu ngi sant dëkkandoo yëpp di sant képp ku njëkk képp ku mës a yëkkati ñaqam ko ci kër gii tabal ko ci tawatu awa bii te yàlla rek tax yàlla na la yàlla suñu borom fay di wax ni nag ordonnance boobu nañ ko indi léegi léegi ñu dem jënd ko léegi léegi awa xam naa ni bu naanee ordonnance bi jaraatul muy dem hôpital te ordonnance boobu saa bu jeexee nangeen ma ko wax lu ma ci am lu ma ci mën su ma ko amul sax dinaa ko estati ngir ñu jàppale la te yàlla rek tax ordonnance bi moom fii maa ngi dund awa sasoo naa ko ngir jëmmi yàlla fii maa ngi dund ordonnance boobu noonu sasoo naa ko ndax sag wér mooy sama wér sama doom baay nga sant ñaŋ may sa doom baay sant ñang kon sama mag nga ma nekk sa rakk nii sa rakk ji taxawee am yërmande lool ci yow te mënul ci yow dara noonu lay taxawee am yërmande lool ci yow jéem lu ma mën ak lu ma mënul jàppale la te yàlla rek tax ñu xaar baay Ass indi li nga xamante ni mooy ceeb ak diwliñ dinañ fi bàyyi cinquante mille yoo xamante ni dina ci jënd garab tey xaar waa tabaski social ngir jëmmi yàlla jàppale leen awa ñang te yàlla rek tax. jali so wana mo yeli ta ko nyami so wana mo yeli ta dole ndare aduna ko futi foyde ha gore njam fo hewi e do kala bonde en dam boni daretuna futti fuyni aliou jajeufal nañ bu baakha baakha baax bonne volonté yi nga xamante ni ñooy yëkkati lekk seen ñaq di ma ko jox ni ma pap defal ñu ko fi yàlla gërëm yow xam nga fi yàlla gërëm defal ñu ko fi yàlla gërëm kon xéewal gi ngeen ma jox maa ngi leen koy defal fi yàlla gërëm mu am ñoo xamante ni weer wu yàlla sàkk ñu yónnee ma cinq mille ñuy yónnee ma dix mille ñii yónnee ma mille francs waaye ñooñ dañ may wax naan pap defal ñu ko fi yàlla gërëm loolee nag moom laa leen di defal fi yàlla gërëm mooy xam nañ ni ñaari saaku ceeb vingt cinq kilos ak dix litres diwliñ kër gu mu nekk boo amee dépense gëm naa ni mën nañ cee barkeelu fukki fan ak juróom te yàlla rek tax ndax bokk na ci jaamu yàlla yi gën a màgg képp ku layal ab jaam bu xiif nga jox ko mu lekk te yàlla rek tax sunu borom nee na looloo ko gënal nga tabaxal ko junniy jàkka kon yéen ñi ma jox seen xéewal gi. yal na leen yàlla foy fay tuyaabab ku tabax fukki jàkka wala téeméeri junniy jàkka ñu yëkkati fukki junni yi jox ko awa ngir mu yónnee ci ordonnance bi ngir ñu dem jënd ordonnance bi la ca des mu toog xaar yàlla sunu borom dana ñëw jaam ñi mu tàggat seeni xol barkeel seen dund ngir fay leen ëllëg yomal xiyaamatul baru aljana dana ñu soutenir awa te yàlla rek tax li mu bëgg mooy dafa bëgg a wér xam naa ni yéen ñiy seetaan su ngeen yoroon ak wér dingeen ko sotti awa ba mu wér waaye comme yoru leen ak wér lépp loo xamante ni mooy jënd ordonnance wala taxawu ab tawatam su ngeen ci jàppee ci numéro boobu ci bande écran bi awa dina wér ndax feebar bii ko dal fii ak mi ngi jël garab yi dafay stable dafay wér vidéo boobu ngeen seetaan mooy bi mu génnee hôpital juróomi fan après ngeen gis ni awa lépp neewi neew bi yëpp deñ na ba mu toog di sant yàlla ñàkk naan ay garab moo tax feebar bi tàmbali waate ñëw maa sàkku ci yéen ngeen jàppale awa te yàlla rek tax fukki junni yi awa ak ceeb ak diwliñ bii ñi ko def bëgguñu nga sant leen bëgguñu nga gërëm leen man mi leen ko jottali bugguma nga sant ma bëgguma nga gërëm ma waaye bëgg naa nga ñaanal leen bëgg naa nga ñaanal ma sama mag mu feeñ bëgg naa nga ñaanal leen yàlla defal leen ay tawféex ki ngëneel mu gën leen di yomb awa am ok ko ne kay maa ngi leen di sant di leen gërëm yéen it ngeen ci lool ndax ñaari saaku ceeb ak birange di ko andil li nga señ pam ñaa waxe rek man buñ ci mëna dund ay kiyet daan ci mën dund lu mat fa 15 jours waaye ndax dama daan liggéey di andi bëggul sama yaay ji bëggum ma xiif bëggum ma mal bëggum ma rafle waa lu ma am rek dërëm mu am bokk naa ak moom waa adduna bépp nañ ma jàppale mboolem waa kër sëñ Tuubaa yépp nañ ma jàppale waaw bañu ma ñaan bañu leen barke Sëriñ Fallou sant naa leen gërëm naa leen. dégg nga ko Baye aliw euh, moom Awa wax na lépp li nga xamante ni war na ko wax waaye boo ko xoolee da nga naan am na lu ëpp juróom fukki at te nee na ñaar fukki at ak juróom-ñeent la am nee na ëpp daanaka bi ko feebar bi dalee ak léegi ëpp na atum yàlla gisul ay réglam te yaa ngi gis biir bi di gën di gonfler di gën a neewi kanam gi di yi yaram wi di neewi bopp bi di yi waaye ñu ngi sant tey gërëm na ci ñëpp jàpp te yàlla rekk tax.